nataal fukk ak mooy yàlla te ci yàlla lañuy amee dund gi bi mu nekkee ci kaw suuf ubbi na ay bëti gumba mu déggloo tëx yi mu doxloo lafañ yi kàttan moo doon jóge ci moom te di wëral ñépp ñi feebar benn bés dekkil na benn xale bu jigéen bu deewoon benn bés xaritu yeesu yi nekkoon nañu ci benn gaal ngelaw li di wal bu baax te xaritu yéesu yi nekkoon ci jafe-jafe ndax ñu gidde seen gaal ci loolu yéesu doon dox ci kaw ndox mi ndax mu dem ci ay xaritam te moom daawul suux bi ñu ko séenee ñu am ragal lool foog ne njuuma la yéesu ne leen man la buleen am lu ngeen di tiit mu yéeg ci kaw gaal gi nekk ak xaritam yi ci loolu ngelaw li bàyyi yéesu def na mbir yooyu yépp ndax moom mooy yàlla moom mu ngi nekk ba tey nekkoon na ak yàlla baay bi bi ñuy sàkk àddina si kon lu mën a nekk la bu yéesu mënee lépp te yéesu kenn la ba tey